min charri lwaswas alxannaas allazi yuwaswisu fi suduri naas min aljinnati wannaas muhammadun rasulullahi wallazina maahu ashiddaau ala alkufaar ruhamaau baynahum taraahum rukaan sujjadan yabtaxuuna fadlan min allahi wa ridwanan simaahum fi wujuhim min asari sujud zalika masaluhum fi tawreet wa masaluhum fi linjil kazar in axraja shatahu fa azarahu fastaxlada fastawa ala suuqihi yuxjibu zuraa li yaxisa bihim alkuffara waada allahu lazina amanu wa amilu salihat minhum maxfiratan wa ajran azima allahuma salli ala sayidina muhammadin ilfatixi lima uxliq walxaatimi lima sabaxa nasir alxaq bilxaq walhaadi ila siratika almustaqim wa ala alihi xaq wa miqdaarihi al nuy wax assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu di nuyu ñëpp ñi fi jaar ñi teew ñi teewul góor ñi ak jigéen ñi mag ñi ak ndaw di ba jiital ci nuyoo bi nag waa daaira bi tey jël nuyoo bi di ko teg ci loxo sunu sëriñ su baax si fi teew mu sëriñ Muntaqa mi toog sama wet ak sëriñ Abdul Akim ak oustaz mi doon wax sànq ak mboolem mbokk taalibe yi di nuyu waa daayira bu baax a baax di leen xamal ni sant nañ bu baax ci teew ci bés bu tedd bu bari njariñ bu mel nii eh, nga xam ne bésu a Cheikh Ahmadul Xadim la muy abdullahi wa xaadimu rasul ba àdduna sosoo ba tey ñaari martaba yooyu ñoo ëpp doole muy martaba abdullahi ak martaba xaadimu rasul abdullahi mu ngi jëm ci diggante nit ki ak boroomam xaadim mu ngi jëm ci diggante nit ki ak li muy liggéeyal diine ñaari martaba yooyu nag danañ ci sànni ay kàddu ba nit ñi xam ne lenn rekk moo jig doomu aadama wa ma xalaqtul na wal ins illa li yaabuduun doomu aadama condition première am bi nga xam ne moom dong dong dong dong moo tax ñu bind ko mooy mu jaamu yàlla jaamu yàlla nag yaatu na lool bari na ay xeet lool bari na ay melo lool moo tax Abdullahi mooy tur wi nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa bis bi gën a màgg ci bisam muy bis bi mu riñaane bis boobu lañu dégg sunu borom tudde ko Abdullahi li tax sëñ Tuubaa du tudd Abdullahi wa xaadimu rasul ñoo ngi siyaare sëriñ Muntaxa Mbakke mii di sëriñ Tuubaa te li tax ñu tàmbalee wax ji nii Abdullahi wa Xaadimu Rasul daf ko ñor lool te moom bu sañoon ñëpp ci la ñuy waxtaan dégg ngeen mu ne bi yëpp am na tolluwaay ci yàlla yëpp am na waaye sëñ Touba bi ñaari yim ci jël moo ëpp doole ci martaba yëpp ndax li ko waral mooy boo demee ci mbindam da ngay gis ne Xaadimu Rasul xitma buñ koy wax bu sëriñ Touba ñëwul woon dimension bi mu am ak tolluwaay bi mu am ak diggin wiñ ci am sax duñ ko am ci ma ndax Serigne Touba dane dafa liggéeyal yonent bi xitmata sidqin maa in laha min moo ko bindal boppam daal di waxaat ne man zanna annahu yakunu abada yurdiihi billazi ka xidmati bada nafaytu zannahu bi anniyal xadim déglul wax jooju ni mu riche ak ni mu amee pas-pas ak ni mu diise ak ni mu amee signification jërëjëf waaw wax nga dëgg wax nga dëgg man sanani xayral xadim al mustafa fa innani axdimu bi mustafa adimu ila duxulil janna daaril qaraari wal muna wal minna خدمتي بدا من ظن أنه يكون أبدا يرضي به بك خدمتي بدا نفيت ظنه بأني الخديم بما وانا عن مثلي كل خديم ñu ngi sàkku ci mbokk mbokk taal bi yëpp nañ bàyyi xel li ñuy wax ngir jëmmi sëñ Tuubaa képp ku nekk ci biir na ngeen déglu waxtaan wi am na solo lool barke borom Tuubaa ngi tuub ndax dafay lu ñor sëñ Muntaxaa Abdullahi wa Xaadimu Rasuul nit ñi dañ koy dégg nii waaye lu ko gën a diis ëpp ko importance mboolem philosophie yi mboolem daraje yi ci yàlla mu ngi ci Abdul Xaadim moo tax mu ne man zanna dafa xam ne njort rek la mën a doon annahu yakunu abada yurdihi billazi ka xidmati bada nafaytu zannahu bi anniyal xadim bi ma wana an mislihi kullu xadim loolu dafa leer de moom la sama doom ji doon yëkkati yàlla na ko yàlla may fan wu gudd sëñ tubaa dane man zanna ku njort gis nga fa mu ko daldi yóbbu annahu yakunu abada koo xam ne defe nga ne fii ba bis pénc di nga mën a am lii muy bëgg a wax yur diihi bi lesi ka xidmat yi yàlla gërëmee la ni ma gërëmee ci liggéey bii ma liggéey mu wir ñépp yow dama lay teel a dimbali wutil beneen daraja wutil yeneen pexe na faytu kooku moom daq naa njortam dimbali naa ko na faytu daq dàq naa njortam na xam ne bi anniyal xaddim xaadim buñ koy wax man nii la ndax xamoon ngeen ne Anas ibnu Malik daan nañ ko woowee xaadimu rasul ba sëñ Tuubaa ñëwagul waaye turu xaadimu rasul dafa mat di def waxtaan Abdullahi wa xaadimu rasul xaadimu rasul bu ngeen ko dégloo dina baax ndax ñun ñëpp koo wax mu ne sama doom xaadim laa ko tudde sëñ Tuubaa mooy xaadimu rasul te gis nga xaadimu rasul mënoon nañu ñun murit yi fu nu daje waxtaane baatu xaadimu rasul ba jóge fa te du jeex xaadimu rasul géej la bu gudul jeex xaadim rasul rek laa wax abdullahi wa xaadim rasul mooy turu Serigne Touba dëgg dëgg mooy wi ko gënal ci tur yi xam nga lu tax abdullahi ji mu doon ak xaadim ji mu doon sakku téefu yonent bi sallallahu alayhi wa la foofu nag ab laaj a ngi fi dafa ne raama rasulullahi euh, ñu bari nga koy wax di ko rabaace fu nekk nag raama rasulullahi min ilahi loolu mënuñu xam kañ la mënuñu xam fan la ko yonent bi sàkkoo mënuñu xam nan la ko sàkkoo ci yàlla mënuñu xam ndax xablal xalxi la ba yàlla laata bind bindee fi loolu daf noo kawe waaye dana raama sàkku na rek nan jàpp li mu wax rasulullahi yonent bi min ilahi ci yàlla kaw foofu laa jëm si xadimuhu wa abdullahi ñaar yooyu dong la ko yonent bi sàkkul ci yàlla mu doon abdullahi wa xaadimu rasul kon lu jiitu loolu lan la woon loolu moom mbiru xëybu la duñ ci dugg waaye baatu xaadimu rasul na ngeen seetlu fixlu arab bi muy utiliser toujours buy wax xaadim kaw niya lay wax na ngeen ko seetlu kaw niya takwiin la takwiin li ñuy wax takwiin maanaam xaadimu rasul dafa am luñ ci ne dafa am loo xam ne taxsiis la am loo xam ne xaw a dee moo koy may nit daj loo xam ne yàlla day jóg sa diggante mboolem nattuy àdduna yi ak alaaxira seetaan la ak loolu dama bëgg ngeen déglu baax li may wax takwin boo seetloo seetlu leen xasida yi kaw niya rek lay wax kaw niya xaadimu nabi wal kitaab fadlun min al wahaabi la min iktisaab ñu digg foofu ne ndekete xaadimu rasul lu ñuy jagleel nit la nga demaat ba mu yàgg mu waxaat la ne la xaadimu rasul mbir la moo xamante ni nii dañuy dajale mboolem nattu nitu yàlla yi fi jaaroon teg la ko yow kenn soo ko attane soo ko doon xaadimu rasul kon xaadimu rasul ndekete tax sii sa ngi ci biir waaye nattoo ngi ci biir bu wér boo xam ne bii mooy tax nga doon xaadimu rasul kon bu ñu oyofal loolu wolof lu mu yàgg dégg rek miin ko rek toxal ko baatu xaadim moo tax fi mu nekk nii sax xam naa dinaa ko souligner fi mu nekk nii luñ daawul gis ñu ngi koy gis xaadim rey na nit fële xaadima def nangam xaadima def nangam xaadima def nangam ndax ñun dañoo xamul luy tur woowu te sëñ Cheikh Fall Baye góor sama sëriñ nee na ma suñ la joxee safara wu saas di la saafloo dara te turu xaadima ko andi de suñ la joxee safara wu saas di la saafloo dara soo góor góorgóorluwul loolu dana xëm te sëñ Tuubaa safara wu saas la ku ko yor sëñ Cheikh Fall Baye góor nee na na nga xam ni nga ciy tegee li nga ciy teg na nga xam noo ko ciy tegee ak lu muy nangook lu muy bañ booba jigéen a raam ni mel melukaan wu yéeme tàllal ko doomam maa ngi toog mu ñaanal ko ba noppi mu ne ko xaadimu rasul lañ ko laa ko tudde sama sëriñ ne ko su ma xamoon ne sëñ Tuubaa lañ ko tudde duma ko ñaanal na ko tooñ nga ma de bi ndox ndaw si delloo ginnaaw ba toog ne mu ne ma njaga ma ne ko faal mu ne ma kii war naa jur ku ñu tuddee sëñ Tuubaa ndekete sëñ Tuubaa ka koy tudde sax daf ko war a mérité ndax xaadim du tur caaxaan tur mirit la moo tax mu ne nafaytu zannahu bi anniyal xaadim ku defe ne mën ngaa doon xaadim rasul munta nekk ñu ne ko ndax da ko wax noonu rek teg ko ci suñu loxo mu ne ñi ñiy ñëw sax maa ngi leen di xamal ne bi ma wana an mislihi kullu xaadim ku mës a liggéeyal yonent bi gàcceel naa la dafa am nag loo xamante ni lii dafa am solo mooy jaayante nan ko fàttaliku xam ne jaayante munta ñekk ci ku bëgg am dara ci yàlla te jaayante boo seetloo li ñuy wax ba bayaatu ridwaan boobu ñuy wax ñu bare ngi ñii di ko wax te xamuñu ne bay atu ridwaan ba muy xew la taxoon mu xew ba jullit yi di jaayante ci suufu garab ga di jaayanteeg rasulullaay ba mu jaayanteel Seydina usmaan jaayanteel boppam Seydina Ousmane dama ne jaayante googu ñu bari xamuñu ne la taxoon ñu jaayante sax mujjuta am waaye nag booba dee taxaw na joxe sa bakkan taxaw joxe sa jëmm taxaw bàyyi sa njaboot taxaw lépp taxaw li sa yant bi ne foog ñu jaayante tey lan moo ko waral sallallahu alayhi wa sallam daf doon umra ji bi muy jub màkka mu ne saxaaba yi fokk ñu yebal kenn ñu dem ci waa màkka ni leen man ñëwuma ngir xeex balaa ñu may siin defe ne leneen a ma indi dama bëgg ngeen déglu baax li may wax ndax dafa am lu ci sëñ Tuubaa daal di ne Seydina Omar moo tax lislaam nañ koy dégg nañ dégg lislaam wallahi matula tisri sëñ taxa Bachir yàlla na fi yàgg te bi mu dajalee mbokkam yi di wax ak ñoom daan wax dafa jot am na wax jum wax ci biir joo xamante ne lépp mat a jàpp waaye am na wax jum wax ju doy waar nee na lislaam ba mu sosoo ba tey lu mat a wax wax nañ ko lu mat a bind bind nañ ko lu mat a leeral leeral nañ ko waaye ñu néew a jariñu ci lislaam sëñ mun taxaa ko wax de waxuma ko mu muy muy loo xam ne nag ñun ñëpp bañ ko déggee dañoo waroon tiit ñi jariñu ci lislaam bariwul sëñ mun taxaa ko wax de waxuma ko lan moo tee ñu jariñu ci loolu moo mat a xam ndax yonent bi sallallahu alayhi wa bi mu ne Seydina Omar jógal nga dem màkka wax leen ne leen ñun xeex andiw ñu damay omra ji li tax nga xam ne lislaam lépp ak nite la lislaam bu ci nite génnee yawute génn ci pas-pas génn ci yitte génn ci yéene ju rafet génn ci lislaam nekkatu fa donte ibaadaat yëpp yaa ngi koy def nañu xam ne ibaadaat yëpp ni ko sëñ Abdul Hakim doon waxe sànq ibaadaat yépp dafa am lu muy joxoñ soo ko defee ba noppi foofu ngay peesee sa bopp ndax nangul nañ la ko wala déet yaa ayyuha lazina amanu kutiba alaykum siyaam kama ba ala lazina min qablikum waaye jeexlu ba laalakum tattaquun bu fekkente ni ci jeexlu ba constaté woon ragal yàlla dox nga ci bi nga wooree ba noppi na la wóor ne échoué yàlla nañ ci yàlla musal te yàlla nangul ñiy woor ñëpp laalakum tattaxun inna salaata tamit tanha anil faxshaai wal munkari julli dafay tàggali nit ak lu ñaaw ak lu ñu sib léegi problème am na na julli ñuy poser question ci loolu nañuy laaj suñu bopp di julli ba noppi te fuñ la fekk la gën a ñaaw ak la ñu gën a sib soo jógee ci ngay nekk Sénégal sax xewal nañu léegi ku nekk ci boppam nekk ci bakkanam di fo di def lu ko neex bés bu faatoo ñëpp dañuy bëgg gëmloo nit ñi ne wàlliw la waxuma sax ne duñ ko jéggalul yàlla de pour wan na ne yàlla nañ ci yàlla musal au ñu jéggalul ko yàlla ndax yàlla war a yërmandeem yaana waaye dañuy nekk di wax ba nga defee ne kooku nitu yàlla ci bu mag la maa ngi koy li fan yee muy luy xew Sénégal am na fokat boo xam ne keroog ba ma jóg génne àdduna dafa am beneen fokat bu ñu laaj ne ko loo xam ci diw mu ne diw mii de jaaxal na ma moom de nitu yàlla la ñu ne ko lu tax mu ne ndax ajjuma ci weeru koor la nelaw nelaw ajjuma ci weeru koor bu ñuy wax augure bu rafet la looloo ka nekk ci dëgg nekkoon ci juba tax waaye tubaab ñiy weddi yàllaa ngi nii di faatu ajjuma ak weeru koor kon bu ñu nax suñu bopp bu ñu waru nañu nañu nañu dëggu ci li ñuy def léegi seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ba mu ko waxee omar ngir wan na ne lislaam benn contrainte amu ci lislaam amul luñ ciy teg nit te du coobaree bakkanam lislaam dafa indépendant dafa libérer esprit nit libérer xolu nit libérer jëmmu nit bañ na ko ba lislaam ku ciy dugg sax kenn du la forcer yow yaay ñëw wax baatu séeréer yi ñu dugal la ci mooy ak murit benn murit bu ñu mës a forcer ba mu jébbalu amul ba yoon murit sosoo ba tey benn murit bu ñu propagande ba mu jébbalu amul waaye nag am na propagande Sëñ Tuubaa keroog laa ko doon wax sëñ Isaaxa ne ma lii foo dem na sa waxtaan wii nanga koy faral di wax sëñ tubaa am na propagande propagande mooy lan ab dan surura li kulli raay nga doon jëmm joo xam ne ku la gis bëgg la bu jaxasoog yow gën laa xemmem boo ko wanee ginnaaw dootu la mën a ñàkk waaw sëñ Modou Moustapha taw sëñ Touba nee na xam ngeen luy murit ñu ne ko déedéet mu ne koo xam ne koo gis mën a wax ak moom te doo gis kenn di sëgg doo gis kenn di jàdd koo gis mu doon sa nawle nga mën a wax ak moom nawle gi lay wax maanaam ku baax ku ne na doon sa nawle loolu mooy murit ku baax rek ak nu mu baaxe ak fu mu baaxe bu la gisee na xam ne sa nawle la waaye bul bul def sa bopp noo xamante ni nii nit da lay gis di ci xeet sëriñ bi Seydina Omar ne ko xam naa ne fi mu nekk ni guddi na danañ gàttal waxtaan wi ngir libérer nit ñi ndax toogaay bi dafa yàgg waaye Seydina Omar tontu yont bi ne ko man yéeféer yi dama tàngoon ci ñoom ba ma newee màkk am na ci ñoo xam ne mayu ma leen dara te man kenn bu ma fa demee mën naa jur lu mag mën naa jur aw ay yont bi ne ko Omar wax nga dëgg gis nga ni mu àndee woon ak aw nitam daan ne jógal dem ndax am na sa mbokk yoo fa des Seydina Ousmane jóg dem mbokkam yi nag bañ ko gisee gàddaay gi mu gàddaayoon ñu ñu yàkkamti woon Ousmane mbokk yi ne ko fokk ñu gànnale la ay fan nga soog a dellu téye bañ ko fa téye nag moo tax toujours lu ngeen déggati minha tawaqufu an xawlin wa an amalin xataa yarawhu saxiixan bi shahaadaati tawaxuf an xawlin wa an amalin lu ngeen déggati rawatina réseaux sociaux yi ngeen di dégg waa kay Mbacke jërëjëf waaw waaw xam nañ ko xam nañ ko baax Mbacke waa ah, kay jërëjëf Mbacke allah allah eh, allah micro bi allah dañ ko débranché xanaa waaye mënoon na bàyyi bii mu continuer rek léegi ñu jeexal allah allah ñëwagul de allah allah allah hmm? dafa xat ke programme bee xat kon nag ñu ñu ñu kii tuuti rek ñu tënk wax ji ndax tamit ni mu demee la waaye ñoo ngi koy jégalu bu baax waaw xat na waaye nit niti loolu ci la bokk mbir moom nu mu tëddee rek noonu nga koy jàppee kon nag Seydina Ousmane bi mu demee nag am ñu yónnee ne sallallahu alayhi wa sallam rey nañ ko gis nga yàlla ni muy def nitam léeg-léeg nitam nekkal ko ci kaw suuf waaye muy wane ne moom rek xam rëy bu moom yàlla kenn xamu ko ku dul kum ko xamal hmm? keroog Seydina euh, euh, Muhammad sallallahu alayhi wa li muy bari bari xam-xam mënta vérifier ndax rey nañu usmaan wala déet mu daan ne nag ñëwuñu woon ngir xeex waaye xeex taxaw na nañ jaayante fii kenn ku ne na jaayante joxe léppam toog ci taatu garab ga loolu moo ànd bayatu ridwaan waaye gis nga ñoom ba ñu jaayantee noonu aaya alxuraan a ngi fi des ba tey di leen kañ laxat radiallahu an il muminin is yubayi'unaka taxta sajarati fa alima maa fi xulubihim loolu la yàlla soxla li ci sa biir xol ñun dañoo extérieur ba mu ëpp nañu wattandiku loolu jullit war naa rafet ku ko gis xam ne na sol mbubb mu rafet na def lu rafet na dëkk fu rafet na am lu rafet loolu yëpp bañ ñu ko ci jullit waaye bu mu nekk ci xolam yàlla rek a war a nekk ci sa xol nañ góor góorlu te xam ne inna allaha laa yanzuru ila suwarikum yàlla du xool sunu melo xam nga lu muy xool ila ahmalikum seen jëf rek la yàlla di xool moom laay faral di wax baatu asalaamu aleykum ñaata yoon laa ko wax da nuyu nit ne ko asalaamu aleykum wala nga nuyu nit su jóotal ko xoolu su jóot ni mu ba noppi mu wan la ginnaaw nga ne yàlla na dee balaa suba ndax asalaamualeykum amati na solo léegi dama leen di laaj la wuy leen ma sëñ bi salaamaaleykum mooy yàlla na nekk ak yow ba noppi nit ki ndeke sa biir xol mooy yàlla na faatu mooy li mu am yàlla na tàggoog moom yàlla bu mu am dara kon islam bi sëñ taxaa di wax boobu la war a dundaat mooy islaam bi ni ci xol yi taalibi gi muy wax mooy bi nekk ci xol yi bañ a nekk ci làmmiñ yi ak melo yi ci kaw ndax melow kaw wi moom àdduna rekk ko moom Cheikh Ibra Fall baabul muridina nee na moroom amul moroomante amul kenn ku ne sa jëfee sa moroom ndax dégg nga ko ni mu dégg alquran wa wajadoo maa amiloo xaadiran kon nag discours feuille de route bi sëñ Muntaxa defoon man moom laa bëggoon tey ñu andi def ko waxtaan waaye xaju fi ndax sëñ Muntaxa daf ne bi mu jógee àdduna la jëkk jàng te ñun ñëpp foofu lañ daanoo ñun ñëpp foofu lañ daanoo maanaam ñun àdduna la ñuy mujjee jàng moo tax mu di gàllankoor nii nee bi mu jógee dafa bàyyi boppam fas yéene jàng àdduna ngeen waaye dem naa ci ba am tawféex waaye loolu bu ko Sëñ taxaw waxee ñun dañoo war a jàngaat ni ndekete nit ki àdduna bii mu nekk la war a jëkk xam balay xam dara xam nga lu tax xasida gi ñoo Hamad Souleymane maa ngi koy wax barki démb benn waaye di ree ne ma man Hamad Souleymane laa defe noon moom la ñuy wax ma ne ko bu la Souleymane déggee nga xam ndax Souleymane boo ko xamoon xam luy Souleymane nga xam ne am na ñoo xam ne xasida yi sax tux fatu sax man daanaa dégg ñu koy wooye tëw fatu Hamad Souleymane bi sarfi an maziyaati àdduna la sëñ Tuubaa doon waxal noonu loolu lañ sëñ Muntaxa jàngal foofu laay kiyee rek tënk ko ndax fi mu àgg yépp mënoon nañ ko def waxtaan tey moom laa jàppoon Hamad Souleymane bi sarfi an maziyaati sëñ Tuubaa nee na àdduna laay waxal waaye xam nga nu mu ko tudde Souleymane xam ngeen luy Souleymane xastew ma nag Suleyma mooy jigéen ju màgget dem ba am juróom ñetti fukki at yépp wadd mu dem poosé waat bëñ yépp ba mu weextal xefam yi tàmbali ruus mu dem poosé ay xef weyam yi euh, tàmbali ndoxum siti mi jàpp ko ba nga xam ne weyam yi dafa kumur mu dem ñu defaral ko wey mu këfalu teg ci daldi wut karaw gudul karawam dëppoo ko ba noppi fekk xale bu góor buy soog a toll ci diggu dooleem li may wax nag xam naa ne ba ngeen yóbboo déglu sëñ Tuubaa ko bind loolu mooy Suleymaan fekk xale bu góor bu topp ci diggu dooleem mu nax ko ba xale bu góor bi takk ko ba mu ko takkee nag ba ñu céetal ba noppi nag dara desul lu may wéet mu dugg ci néeg bi mu dugg ci néeg bi déglu leen bu baax wax jooju mu dugg ci néeg bi nga dugg ak moom ci néeg bi nee bi ñëpp demee ba nga de ba mu delloo bunt bi mu daal di tàmbali dindi bëñu poose yi di teg daal dindi bëñ yëpp jal ko ne nga ne ah mu dindi xef yi daldi di dindi wee mu poose këfal gi mu defoon mu dindi ko nga gis ko muy ku kéemaane koo xam ne yow dootoo xam sax ndax nit nga dajal wala du nit nga ne man ci kii laa dugg sëñ Touba nee na ku bëgg àdduna foofu la àdduna mujj ak yow sarfi àdduna lu ko tax a jóg sëñ Touba nee na bi sarfi an maziyaati dalay fekk nga nekk ci mayu yàlla kay ma taquda zimaami li raziyaati mu ne balaa ma laa bàyyi dama laa yóbbu ci ñawteef kon sëñ mun li mu wax sëñ Touba ko wax waaye sëñ bi def ne lakin alimtu wa ilmi sawfa yanfauni bi annaha zaata makrin fi lmaqalaati waaye man sëñ Tuubaa lakin alimtu xam naa de ñu ne ko loo xam mu ne damay jàng àdduna ba mokkal ko aqbalati dunia ilayya xablu euh, président Abdou Diouf am na ku ma nettali na ma mus na wax benn nit ne ko xam nga lu tax sëriñ Tuubaa ñibbisi ci géej gi waa ji ne ko xaw ma ko de moo tax léeg nga gis nit di ko xeeb fekk xam ne ci sëñ Tuubaa loo xamul Abdou Diouf ne ko xam nga lu tax mu ñibbisi mu ne ko déedéet mu ne ko benn tomb ci àdduna bu nekkoon ci xolam du ñibbisi benn tomb tomb ci bëgg àdduna bu fanaanoon ci xolam du ñibbisi daan ne ko xanaa xamuloo ne ku tubaab fexeel lenn ci bëgg àdduna bu fanaanee sa xol yow moom say bokk daañ la jooy daan ne lool képp la du wilaaya du leneen lu toll ni pépp suuf ci àdduna fanaanul ci xolam daan ne ko Serigne Saliou mii de bu daje woon ak ñoom it fu mu dem dellu si waaw Serigne Saliou Mbacke <laughs> nee nag bu daje woon ak noonu ya gën a tar doon na Serigne Touba bu daje woon ak noonu ya gën a tar duñ ko mënal dara ndax lu toll ni tarfatal ay nit ci àdduna fanaanul ci xolam ñun nag àdduna day fees dellu suñu xol li Cheikh Ibrahima wax dërëm ak daraja bañ nañ ko ba am na ñoo xam ne ngërëmal Serigne Touba ñu ngi ko jàppe ne mooy ko am xaalis am na ñoo xam ne fajug ajo fajug ajo ni mu wuutee xaalis am na ñoo xam ne fajug aajo murit bu ko am dañuy defe ne da war a bari la te loolu mbirum suñ borom la ba mu koy bind booba booba juddoogoo wërsëg la kon nag dërëm ak daraja nañ ko wattandiku te sëñ Tuubaa am na lu mu waxoon dafa ne woon yéen a ngi ni ku nekk di woote mënum lëmm te mënum lëmm nag moo xew fi ni koo ci toogal muy wax day wax ba nga defee ne maamam sax moo defar sëñ Tuubaa far da ngay naan sax kon kooku xëj na moo defar sëñ bi xanaa day xëcc di xëcc di xëcc boppam ba won la nelaw la fu sama maam mi toppoon sëñ Tuubaa kenn du dara loolu la lay wax ci wax yi wàcc ne la ku dul sama bàyyi du dara kon nañ delluwaat ci fonkante te jàppante tey dimbalante loolu mooy ndimbal li te kenn ku nekk defar xelam defar xolam defar làmmiñam wii defar ab gisam ba mu mérité sëñ Touba ndax sëñ Touba jëmm da koy mérité ndax am na jëmm yoo xam ne tey bu ñu leen tuddoon ñu ne dañuy campagne waaye ñu mérité sëñ Touba lañ kon nag nañ leen góor góorgóorlu ci loolu ñun ñëpp waxtaan wi xaju fi waaye nag lu dul doy loo ci am mu doy nan sax ci defar suñu jëm defar suñu xol ndax xolkat mooy li am solo te loo liggéeyal yàlla loo jaamu yàlla te defarul sa xol jaamu yàlla nga amul njëriñ waaw yow ma laa laa laa yow euh, ma yow ma laa yanfau maalun wala banoon dégg ngeen lool moo tax Seydou Fall yow yow ma laa yanfau maalun wala banoon bis alal du fa jëriñ dara doom yu bari du fa jëriñ dara maa jur diw ak diwuma jur sëñ Fallou sax nee na boo gisee mu jaay njuréelam jënd kook taalibe falaa am saaba baynahum moo tax ne baat booboo tax kat te ñu bari duñ ko wax sëñ Fallou nee na dafa dégg alxuraan ne bis pénc du ma fa laaj kenn loo bokk ak kenn mu ne kon bokk fa ak sëñ Tuubaa amul solo fexe ba doon taalibe moo am solo daan ne kon lii ma am te kenn amu ko muy juréel gi jaay naa ko jëndi kook taalibe noonu nañ ko war a dégg kon ñoo ngi leen di gërëm di leen sant di ñaan yàlla mu mu dajalewaat ñi fi ay yoon yu bari bëggoon nañoo waxtaan bu baax nag waaye nag ajuwul ci ñun ndax fañ jóge sori na Athènes laa jóge maa ngi fa jóge ci trois heures du matin boobu ba léegi maa ngi ci avion yeeg yooyu kon nag ngir bëgg ñëw teewe seen bés bi waaye bés bi yàlla nañu ko sëñ bi nangul rabbana taqabal minna innaka anta samiul alim wa tub alayna innaka anta tawwabur rahim kon ñoo ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di gërëm waa daayira bi ci xemmem gi mu ñu xemmem te sëriñ bi rek tax ba ànd ñu fii kon nag yàlla nañu yàlla may ñun ñëpp dégg ak topp sëñ Muntaxa na ngeen ñu ñaanal loolu sëriñ tubaa nangul ñu ñun ñëpp ndax nangoom rek a am solo sëriñ Saliou daana wax yàlla na ngeen ci dajeeg tawféexu sëriñ Touba ñun na nañu dajeeg tawféexu sëriñ bi ci bés bi maa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp sëñ Moustapha Lo nag. këram laa daloon waaye dalal na ma dal bu aw yoon yaatal ma minute bu ne mu àndi parfum pompé ma ko dellu toog waaw te bëgg sëñ tubaa rek a tax waaye nag duma ko bi bi ma waxee fi mu bokk laa ko ne waaw kay njëmbatub sëriñ tubaa démb bokkut ak bu tey am na ñoo xam ne démb la leen sëñ Tuubaa defar defar seeni maam te defaru sëñ Tuubaa moom dara du ko yàq sëñ tubaa nee na xaddustu fi min iya min xiyaarin ma ata ahadun minhum bi faaxishatin turwa ani lasari nee na rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam li mu gën nit ñi dañ koo tànn ci biir tànneef yoo xam ne kenn ku ci mës a def lu bon amul jërëjëf nee na nee na yonent bi benn maamam bu ma a mooy yàlla amul nee na kooku kum ne maa la gën nangul sëñ Touba doomam yii tamit boo gisee ñu leen di topp topp ñu leen ngir li ñuy doomi sëñ Touba na ko nit xam dañ ko war a wax ñëpp ñu dégg ko dañ leen topp ngir ngëneel yi ñu àndiwaale ndax sëñ Tuubaa dana wax borom daaru cerno mu ne ko waaw mu ne mu wutal mu koo xam ne juróom-ñaari maamam duñu le mosuñoo lekk riba tey dunde seen ñaq ñooñu ñooñ ñoo meññi doomi sëñ Tuubaa kon jërë ngeen jëf asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. آمين آمين آمين آمين لو أن سنة أصبت أن على الجبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون قول الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم قول الله الذي لا إله إلا هو ملك القدوس السلام المؤمن المحيي العزيز الجبار المتكبر سبحان الله ما يشركون هو الله خالق العالم المستودع له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد من شر حاسد إذا وقب من شر الحسد من شر حاسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس يا رحمن يا رحيم ربي بما يصلهم أسلم قد جاء بجاه أفضل من الله قد حمدي رب الكريم من أسألك له والصبر اليوم من ساعته محمد صلوات الله عليه في اسم قلوبه قد أدعو إلهي لزعم المواهب li junuudi xalqi ma yaxtaaru man bara naajaytuhu jalla amama wa kalaman takrima hadima kulli ma axad bana rahmanu xamdi jamii xalqi ahmadu man yuqni an sarri man quranahu xara xut ummatan mustafa an kulli masadatin waltar amin xalqa yaa man jaduhu bada yaa malikal mulki yaa man jadam xawli irham jamii wara irham jamii wara irham jamii wara yaa aaliman rada mahmadana qad maahu fadlu daayi bijaahi afdal bilay xad subhaana rabbi sama isfa amiin amiin jërëjëf Mbacke jërëjëf Mbacke sant nañu bu baax nag